salaamaaleykum mbokki internet euh, IGFM point sn tey dañoo mbégte euh, di dal ki nga xamante ni euh, moo di Diallo donc euh, kan nekk na koo xamante ni euh, moo ngi bay waaram euh, ci li nga xamante ni moo di musique nekk ki nga xamante ni mooy doomu Masouña nekkoon ci Dandeleñol du doon ànd ak nga xamante ni moo di Baba Maal donc tey occasion la ñu indil leen ko mu waxtaan ak yéen ci single boobu nga xamante ne moom la génne tey di ngeen xam kan ci lan la nekk ak lan lay préparer li nga xamante ne moo di ay fansam kan ñoo ngi kontaan ci dalal bi ñu dalal fii di la wax nga nuyoog internet yi lay seetaan waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum à uh, tout le monde maa ngi di nuyu ñëpp di am uh, contentement le fait que ngeen déplacé wu tey ñëw seet si ma ça me fait plaisir et uh, ngi leen di dalal nak fi nga xam sama fiaf la sama fii laay nekk tout le temps muy Amoré donc voilà ça me fait plaisir que ngeen fe fekk ma fi quoi D'accord, donc nga génn benn single boo xamante ne yaa ñu koy wax gis bëgg ñu bëggoon waaw ku gis bëgg gis bëgg yàllaa koy def wax naa ko tënk naa ko ci morceau euh, bon voilà xam nga mbëggeel moom euh, noo ko wooyee ak foo ko wooyee rek mu neex euh, noonu la demee puisque ñun dañuy inspiré dañuy am ay inspiration yoo xam ne à chaque fois bon lu ci ëpp ay woyu mbëggeel la raison pour laquelle bañu ñu ci phone ma automatiquement ñu def ben son bo xamné bon dañ ko doon fowé tamit xam nga euh, chez moi mu ma doon jël suma guitare di di ci woyantu ni mané pourquoi pas ma enregistré ko génné ko et c'est venu naturellement comme ça voilà. donc ñu bëggone xam euh, aussi kan jallo nan la def ba dugg ci li nga xamante ne moo di musique. waaw loolu moom mooy <laughs> ndox du bay yoonam. parce que man dama amoon wajur bi nga xamné ci musique la nekkoon xam nga nekkoon koo xam ne ku bëggoon aar euh, ma nekk doomam xam nga muy Mbasuña fa Mbasuña nekkoon ménageur ci Baaba Maal euh, yàlla def nag depuis boobu ba tey ah digg yàlla maa ngi topp ci ay euh, paawam maa ngi topp di jéem di def tout vraiment pour pour pour relève bi quoi pour pour jël relève bi bokk voilà c'est donc euh, est-ce que nek na lo xamantene mom mo na influencer influencé nga def musique wala dafa nek lo xam sa passion la nga gis mu koy def mu nga bëgg ko après nga influencé ah oui mom sama référence la won sama sama idole la won mom ak euh, baba mal ak euh, Youssou Ndour Thione sek ñooñu sama idole la ñoo xamné ne mën naa wax ni si ñom la jangé way ci lu bari bari bari si si si ñu doon def et tout ba muy nek lu ndaw dama daan topp sen ay way donc euh, loolu laa màggaale alhamdulilah ba ba ma dugg ci musique bi dëggantaan xam nga euh, voilà alhamdulilah daal waaw. donc euh, sa papa wala Baaba kan moo la gën a inspiré si sa carrière. à tous les de vraiment tous les de Baaba ma bu ko inspiré mais mon père aussi m'a ko inspiré parce que boo nekkee lu ndaw daan leen seetaan daal leen gis partout dans le monde et loolu moo ma topp waaw moo topp ba may nekk xale bu ndaw dama leen daan gis. xam nga euh, ñuy dem ay soirée ma daal ma ma daan leen gis ci ay télé ma daan leen gis fu ne xam nga voilà loolu dafa ma doon euh, bokk na ci yu bëri yoo xam ne euh, dafa daan dafa resté sama sama sama tête quoi voilà. donc jour bi nga xamante ni sa papa daf la gis ngay waaye est-ce que tamit au début nekkoon na loo xamante ne bëggoon na ko nga dugg si kër def musique ak yooyu. ah oui bien sûr bëggoon na ko lool en fait sincèrement il attendait pas mosul woon yaakaar nit que ni man damay woy.

ma ñu ñu insister xam nga sama sister boobu ak sama papa ji bañ ko ba ñu insister mooy kenn ki euh, mooy sama papa capitaine Sall maa ngi de passage ak xadi xadu xadush ñoom ñoo ko ñoo ko doon euh, forcer pour que mu déglu ma et benn jour ma toog ay 3 euh, heures du matin 4 heures du matin xam nga di ko bësal ay tànkam comme j'avais l'habitude de le faire parce que sama papa dafa nekkoon koo xam ne il était trop proche de sa famille xam nga même ñun ñi nga xam ne ay doomam dañu dañ ko jege woon trop trop trop trop et mu ne ma naa ko naa ko bësal tànkam ba ma koy bësal tànkam di ko bësal bës yaa mu ne ma dégg naan da ngay woy est ce que mën nga ma woyal benn benn woy ma ma dégg sa baat ma ne ko mais bien sûr parce que instant boobu man tamit denc naa ko ba somm ma ne c' est le moment nag vraiment mu ni man damay woy parce que di nag dëkk ak nit ki mu nekk ci euh, mu nekk ci musique ñu xam ko xam nga tey ne sax doomam day woy ci laa ko woyal benn woyu woyu Thione Seck ah, mooy ndeyu ndeyu kenn bi ba mu ko e, si saa si waxuma dara mu jóg daal di dem tëddi ma e ne eh man am naa problème sootu daaray kokki lañ may yóbbu suba <laughs> j'avais un problème et ah, ba ma yeewoo gisuma ko bon dama man ma dem jàngi moom mu yeewu teel mu dem kër ba mu demee kër Baba Maal euh, mu woo ma téléphone ne ma euh, ne ma maa ngi nii sa kër Baba Maal dama fi ñëw pour wax ko ni yow da ngay woy léegi yow il faut mu dégg sa baat xam ni yow da ngay woy parce que ba ma ko waxee gëmuma instant boobu noonu maa ngi nekkoon réunion foyer euh, école xam nga ma nekk mais pas man instant bi maa ngi nekk di def réunion doo bàyyi ba ma wàcc après jóge mu ne ma non non non même boobu mu ne dugg ci douche sax dugg ci douche bi nga woyal ko ma dem ci benn classe à côté ma woyal ko woyu Thione Seck boobu noonu mooy ndeyu ndeyu kenn bi Baaba Maal euh, dafa doon ree ba raccroché mu woowaat ma téléphone mu ne ma euh, tey c'était un vendredi le vingt cinq euh, vendredi vingt cinq vingt cinq mars deux mille deux mille dix la woon 2010 waaw 25 mars 2010 donc mënuma ko fàtte jour boobu noonu laa njëkk yéeg ci kaw seen du te sekk woy fa ci kanamu Baaba Maal après ba man ne ko kii utal leen ko guitare soo leen ko utalee gitaar yi il a une voix extraordinaire mën na mën na ci am lu bëri et loolu noonu laa continuer musique ba tey. donc euh, ñu bëggoon xam euh, aussi sa carrière nan lay évoluer nii tey. waaw sama carrière maa ngi koy euh, maa ngi jéem maa ngi jéem avec ak ci ndimbalu yàlla ak ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo nekk sama ginnaaw ñoo xam ne samay frère samay xarit yi nga xam ne ñoo may jàppale ku ba bëccëg. xam nga euh, am na si ñoo xam ne maa ngi ciy liggéey ak ñoom ko ci mel ni studio Dóor waar ci tëf ak euh, Pape Didier saytu xam nga euh, Amadou Anne ñoom Jibi et tout ciy liggéey ak ñoom boo tey boo déggee kan jàll weer maa ni lépp daal ci ndimbalu yàlla suñu borom xam nga ñoo ko defal suñu bopp macha allah. donc euh, sept ans amaguma album amaguma album. waaw bon mooy li ma yàgg di wax rek xam nga album euh, surtout soo nekkee koo xam ne danga nga gëm euh, da gëm li ngay def te bëggoo ci am benn faay buggoo ci am benn euh, lenn luñ la ci joxoñee man sama album damay jël suma temps c'est pas parce que damay ñëw rek jël suma album comme ça nii maye ko comme ça non non non et que je vise man personnellement je vise au niveau international tu vois donc bëgg naa vraiment national bi mais quand international bi il est temps tamit ñu génn ci xam nga gars yi gën ñoo xam foofu noonu noonu voilà raison pour laquelle euh, album bi damay jël suma temps pour le moment damay jël suma temps pour euh, mën ko liggéey am na studio yu yu yu yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey ñu ngi liggéey pour album bi am na tout ce qu'il faut mais quand même il faut du temps musique patience la ak liggéey. Euh, tey jii nii nooy définir sa musique. waaw world music ah musique boo xam ne amul frontière musique boo xam ne foo dem fu ne ku ne mën na kaa déglu boo demee ci chinois bi mën na ko déglu boo demee ci japonais bi mën na ko déglu séeréer bambara bi fu ne mën nañ ko déglu loolu vraiment euh, mu loolu lay définir suma musique c'est ça. d'accord donc euh, say début ci li nga xamante ni euh, moo di musique est-ce que yomb na est-ce que yomb na fii Sénégal def musique est-ce que tu as eu des difficultés. non yombul wax dëgg yàlla yombul parce que musique au Sénégal il faut mooy li ma wax rek il faut patience il faut tamit euh, ngay nga nga bëri dugg-dugg <laughs> bëri dugg-dugg surtout en ah, xam nga euh, en plus euh, di il faut ngay forcer sa bopp nit ñi même si tu as du talent les gens mën nañ gis ne am nga talent mais il faut nga forcer leen sa bopp il faut il faut waaye il faut nga communiquer il faut tamit nga nga nga nga gën a gëm sa bopp surtout gëm sa bopp c'est pas du tout facile billahi c'est pas c'est pas facile mais il faut que gëna gëm sa bop gën a jox sa bop valeur hein pour que nga mëna a yegg ci non sincèrement amul xaalis dëgg euh amul xaalis comme il faut yow imagine bo génnee single ñëpp bon xam nga ñun fu mu toll ñun single lañ mën di gënné fu mu toll parce que guñu album xam nga il faut ñu gënné single pour mëna nekk ci temps bi quoi tu vois. donc euh, boo génnee single nit ñi ñoo koy déglu après nga génnee sa euh, nga génnee sa clip jox ko télé yi di euh, sa clip YouTube situ, après quelques prestations ngay am et tout loolu daal lañ ciy am jeex amul leneen say soirée ngay def xam nga fi am moo fi am alors que tandis que pour moi mën nañ ñun musique musique bi fi ne en ce en ce moment là musique sénégalaise il faut ñu def benn format benn formule boo xam ne ben single boko ko mais tu peux avoir des millions parce que boo xoolee en bon c'est vrai que ni doole yom euh, yamul xam nga niveau yi du ben et tout mais bo démé ci yenen réew yi euh, bo génnee ben single mais attends tu as des millions donc tel n'est pas le cas ici au Sénégal. bon problème bi man xam nga jiitu na ma. jiitu na ma problème bi moom je pense que jiitu na ma nel kay la mooy solution bi nan pas mën def. xam nga mais problème bi jiitu na ma. Euh, solution bi mooy liggéey jaay suñu musique liggéey musique bi war bi mën a jaay bi mën a dem boobu lañ war a use boobu lañ war a def te euh, mbalax neex na lool saf na sàpp mais quand il faut ñu moderniser ko non il faut il faut ñu moderniser ko gis nga laa fa passé euh, maa ngi doon seetaan Youssou Ndour yàggul dara maa ngi ko doon seetaan benn tournée bi mu doon def à l'extérieur ay Angleterre Allemagne et tout mais si tu vois euh, musique bi mu fay def mais c'est consommable par force et que boo les salle bi yëpp y a que des blancs et loolu ñun moi suñu mooy suñu euh, à chaque fois tu, lolo dañ ciy jàng quoi dañ ciy jàng bu baax boo demee boo xoolee baax mais tamit salle yu gën a mag yu nekk ay Angleterre ay États-Unis lay def ay festival tu vois que des blancs fa gis blanc donc il faut ñun tamit ñu nga jeune génération bi ñu jéem a dem euh, jéem a dem ci cosaan tubaab bi mënoo euh, li nga culture parce que bu fekkee euh, li ñuy def nga ne ko dàq nga tu un problème donc il faut nga jël sa cosaan ak sa culture nga jël am mën leen ko jaay boobaa da leen di impressionné et loolu ñun jeune génération bi il faut ñu jéem ko def man nag maa ngi ci yoon bi euh, yàggatul dara vous euh, di ngeen ci xam yu bëri incha allah. Euh, comme li nga wax sànq yaa ngi wax Youssou Ndour di wax Baaba Maal di wax seen carrière internationale tey kat Diallo bëgg def carrière comme Wally bu muy def wala carrière bi Youssou Ndour ak Baaba Maal. carrière kan Diallo el ma. carrière kan. Diallo vraiment c'est-à-dire euh, ils sont mes idoles Baba Mal est mon idole Youssou Ndour est mon idole John Seck est mon idole mais je veux une carrière de Kane Diallo vraiment. tu ni carrière euh, personne en fait genre ni ku nekk am lu la yalla may Youssou Ndour lu ko yalla may Thione Seck lu ko yalla may Baba Mal ko yalla may Kan ko yalla may peut-être bon euh, su liggéeyee loolu mën na ci am parce que euh, y a secret ñoom ñëpp dañoo liggéey ba yegg fu ñu yegg ñoom ñëpp tamit bon ci ndimbalu yàlla la ñu ñëpp ci yàlla lañ jógee ñoom su may papa lañ dañ may bu ñu ma ñaanalee euh, ñu ma jàppalee ak yeneen ak yeneen war na mën a nekk c'est possible donc voilà moo tax ma ne carrière kan Diallo Wélma. d'accord donc ki nga xamante ne moo di Baba Ma est-ce ngi lay soutenir si li nga xam ne mooy musique bi ngay def. waaw c'est mon père bon loolu c'est évident bon genre euh, loolu euh, moi, géej gi am na ndox waa waa je le vois de temps en temps xam nga bon artiste yombul artiste euh, gisee bi comme ni mu waree loolu du du mën a vraiment hein. il faut il faut tamit ñun nga xam ne ñooy njaboot yi ñu mën leen ko comprendre mais vraiment de temps en temps parfois wa, woo ma la ma ci affaire ma dem fa vite fait ñu accompli quoi. Lalo c'est un tombeur xale yu eh. ko draguer des trucs des ah, <laughs> yaa ko wax de. dama ko dégg rek. waaw xam nga yàlla moom jigéen yàlla dafa barkeel jigéen gis nga jigéen képp ku mu gis euh, bëgg la rek ah noo kon yow war nga xam ne yow am na am na lu ne ci yow quoi te loolu danga ko war a fonk bu baax a baax a baax jigéen ñi nag yàlla dafa ma booleek ñoom. ñu nekk samay xarit nekk samay waay terewul nag. ah ma am non man man du ma wax même wax bi déglu ma rek gis nga ma wax la. dañu nekk ñoo xam ne yàlla moo teg ci ñoom barke loolu ñun góor yi il faut ñu accepter ko il faut ñu xam ko euh, man yàlla ma booleek ñoom yàlla ma booleek ñoom mooy que ni euh, mën naa wax ni sama xarit yu bari ay jigéen lañ. tu vois loolu yàllaa koy def du ci mën dara yaa ngi comprendre donc euh, mën naa wax ni daal samay waay leen et d'accord say waay leen mais quand yaa am na benn baar tu vois am na benn baar am na benn limite nit ku nekk am na respect boo xam ne euh, bi ngay ñoddi ak euh, bi sa caractère boo xam ne foofu ngay yem ak ñoom tu vois donc euh, sa door on s'aime et c'est tout. <laughs> donc tey euh, lan la loo xamante ne que moom nga dund ak ki nga xamante ne euh, mooy sa papa mi ngi fi woon nekkatu fi loo xam ne marqué na la. Euh, bëri na sincèrement bëri na loo xam ne yoo xam ne yu bëri dund naa ko moom yoo xam ne marqué na ma lool lool lool lool parce que dafa jëloon dafa ma jëloon teg ma foo xam ne man sama bopp man je me disais que paa bi est-ce que nekk di délirer non je toujours parce que parfois il me comparait à des grands yoo xam ne.

de de minuit jusqu'à cinq heures du matin doo ngay dem tëddi chaque jour tous les jours on était comme ça dañ doon veille kër artiste moom noonu la moom bon euh, il ne dormait pas xam nga tout le temps euh, dafa doon veillé ba ay cinq heures du matin avec sa famille naan ataaya loolu lañ xam si loolu la ñu yare xam nga euh, nekk ci il était un rassembleur quoi c'est-à-dire moom fi ñu ñi di boolewee foofu la doon nekk et ñun loolu la ñu xam man loolu laa xam bokkoon na daal ci yooyu qualité yooyu noonu vraiment euh, bokk nañ ci ma gën a marqué ci moom dafa daan nekk à chaque fois fi nga xam ne mbooloo fay nekk bëggul woon wéet daal woon kan Diallo marié wu na wala non pas encore ñaanal ma ma marié wu mais bien sûr dinaa takk mais dinaa takk <laughs> mais nit ku nekk loolu ngay ñaan nit ku nekk ñaan nga ñaan nga yàlla ñaan nga yàlla am jabar ñaan nga yàlla am doom ñaan nga ko yàlla ko mais lu jot yomb mais pare na bien sûr mais lu jot yomb c'est-à-dire mun nga pare fekk yàlla pareegul waaw <laughs> samay projet bëri na sincèrement ci ndimbalu yàlla bëgg naa vraiment euh, vraiment bëgg naa sama musique monde entier xam ko bëgg naa di def ay tournée euh, nationale yoo xam ne fu ne xam nga euh, fu ne ma fay dem bëgg naa def ay tournée nationale bëgg naa def ay tournée internationale bëgg naa def bëgg naa vraiment découvrir loo sama musique à tout le xam nga xam ndam musique bi carrément xam nga vraiment loolu bokk na samay rêve bokk na samay rêve kaay ma kaay fon ma ma fon ma su ma lay xool baby sama xol bi day ne waaw waaw fon ma fon ma kaay fon ma fon ma waay fon ma fon ma fon ma yow mi le naningi yo na motema nanga momimba bolingo langa seiyo ye nakalanga yo bebe nanga ye bolingo langa seiyo ye sori yo yeye shiri mi ve mi ve ikalo niki maduna nye sawalale ikalo anuvla ye sepulavi nasumu nasumu nasumu nasumu jarabiyeo nasumu nasumu nasumu nasumu internet eh, IGFM ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi nekkoon nag eh, ki nga xamante ni moo di Kane Diallo Kane jërëjëf. waaw di leen jaajëfal encore une fois di kontaan si seen teewaay xam nga ça me fait énormément plaisir et eh, artiste amul lu dul ko koy jàppale te li ngeen def nii jàppale artiste bi la di leen wax ni ah vraiment amuñu seen fay et maa ngi remercier sama fans yëpp di remercier sénégalais yëpp. képp ki nga xam ne yaa ngi gis kan Diallo di ko bëggee képp ki nga xam ne yaa ngi partout dans le monde ah dama su ma limee damay juum parce que am na ay fans yu nekk bitim réew maa ngi nuyu di leen euh, di leen remercier di leen wax ne nañ jàpp rek taw bàyyi euh, nañ ñaan rek yàlla baax na one <laughs>